woowu jàll mu ne kullu man ahabbani aw maala ilayya farzuqhu dan képp koo xam ne sopp na ma wala mu jeng jëm ci man wërsëgal ko ak njub te njub lépp njub ci la lépp nag njariñal te yëgal ak lépp ngi ci njub mu ne wërsëgal ko njub walla alal moo moo jàll mu ñaar mu ne wa kullu man chatamani aw aw laama fa bi taw wa taw islaama képp koo xam ne ngañ na ma wala mu yedd ma may ko tuub na tuub daal di mucc ca lépp waaw may mu daal di mu mu mu jébbale boppam daal di mucc ca loola lépp wow yàlla muy ñett mu ne fa kullu man asaa ramnahu biya falyaqallib qalbahu képp koo xam ne ñaaw na ci man doon wëlbati ab xolam